tànk yi ngeen dikk yépp yàlla ko yàlla def tànk yi jéggal ak yërmaande tànk dellu gi mu def ko tawféex ak barke ak ubbiku waa ànd ak te mbokk nu gënoo dëgëral ci siraatal mustaqim te bokk nu musal nu ci seytaane ak ndok ak pakk ak musiba ak balaa te dëgëral nu ci siraatal mustaqima te defal nu mujj gu rafet delu di wat rek ak fatelante limay waxtane waxtu wu ne nag ak fatelante moy li nu war waxtu wu ndax di ngeen jog ngir jëm yalla di jogi fu sore di aksi fi kon lu mu gatt gatt gatt rek bala ñoo ko nu dénkante yaari baat rek dénkaane bi nak muy man muy yeen no ci bokk ba lu mu doon rek dañuy jëm rek ndax jikko yi ni waxtaane yëpp jikko ñaare léeg-léeg day doon reen bu sax ba doonu garab am ay bànqaas léeg-léeg nag bànqaas yooye mën naa am ay dégg yuy gaañe loolu mooy loo xam ne dafa ne ci biir xol ba mu yàgg muy feeñ ci kàddu ak melo mën naa dem ba topp ca mu dee jikko la joo xamante ni du doon jikko ju jey noona su boobaa nag léeg-léeg buddi reen bi sànni ca àll ba ñooñu ay benn benn la yàllay defal tawféex ci wàllu tarbiya mën naa ñoo doon mbooloo it ci wàllu tarbiya ñu ciy góorgóorlu ba reen boobee ñuy dem ndànk-ndànk am kàttanuk folet bant yi ak dig yi ba benn ngaañ du ca am mooy dara mën na tàbbi seen xol lu dul noona waaye duñ ko wax waaye duñ ko jëf waaye duñ ko am na ci ñooñu it ah mën nañoo mucc ci jëflante gi waaye mënuñoo mucc ci wax ji ak melowoo gi waaye nag nit ki suy gën di góorgóorlu di gën di bàyyi xel digganteem ak boroomam di gën di fàttaliku ëllëgit eh, di teewal ñàkk solo addunaa ko doy dama ko gen tamit di teewal fañ jëm ëllëg dana tax loole mu cay gën di góorgóorlu ba amaana duutut feeñati ci kàddoom duutut feeñati ci ay cëram Ah, su gënee góorgóorlu gën a farlu yi ndax wala siina jahadu fii naa la nahdiyannahum subulana wa inna laaha la lamaal muhsinin su gënee góorgóorlu gën a farlu it ci ci jihaadu nafsi gannaaw yàlla moom moo ne ñoom danaa leen gindi ci sama yoon te moo wax ne waa na sa siraati mustaqiman fattabihuhu tey siraatal mustaqima moom mandarga mi ko nit ki xamee ni mi ngi ca wala nekku ca la ca gën a fës gën caa leer ci jikko lay doon mooy nit ki amee jikko ju rafet jikko ju rafet nag mi ngi tàmbalee ci nangu dogalub sunu boroom ak muñ aka a sant doo nekk nit ku rëy doo nekk nit ku añaan doo nekk njusti kuy ñistal doo nekk nit kuy waxe du du dëgg li bindee fi yàlla yëpp am boo nee nangub dogal rek day daal di wér ci yow day daal di sax ci yow boobaa lu nu sunu borom melal ab jaam rek dangay xam ne dogalam la ndax fi ne nun ñëpp ci pepp ndox lañ jóge ba doon ay jëmm nii waaw tàmbalee ci néew doole ba am kàttan waaye ku fi yàgg tuuti dellu ci ñàkk kàttan tàmbalee ci ñàkk am xelit ba dem ba amum xel waaye ku fi yàgg tuuti sam xel loolu mooy dogalub sunu borom kon yooyu yëpp nag jaam bi su ko xoolee te settantal ko dana xam ne diggante bi li ci gën a wér gën cee wóor mooy dellu ci yàlla fa firru ilallah dellu jëm ci yàlla ndax eh, démb sëriñ mi ñi ngi waxtaan moo doon wax mbokk moo xamante ne bii ñu bëgg a nelaw nee na dafa ni dafa bind dafa def aw fotoom bind ca inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma ne ko loolu moom ñun ñëpp ci la ñu nekk dañoo dem ba aada ñaare ku fi bàyyi rek mel ni dafa nekkutoon ci yàlla mi ngi ci woon mel ni daa jóge woon ci yàlla ci la jóge woon da caa loolu nun ñëpp la kenn ku ne ci rek mi ngi ci biir inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit ki nag day fexe ba loolu mu di ko dund ndax fii ne lislaam dafa am baat yoo xam nit ki daf koy wax waaye balaa wér nit ki daf koo jëf te muy dëgg ci moom te jëmm yàlla rek a tax nga xamante ni jëf ji nit ñi taxulay jëf adduna taxulay jëf bakkan taxulay jëf bànneex taxulay jëf nit ñi taxuñu lay jëf waaye yàlla moo lay tax di jëf jëf nag ni may waxe waxtu ne jaam bu ne mënoo àtte sa moroomu jaam yàlla rek a ko mën a àtte nit ki la muy jëf ak la muy wax moom rek moo mën a xam lan lay jublu ci lii ma wax ak lan lay jublu ci lii ma jëf ak kam ko waxal hmm. su ko defee nag kon ñun ñëpp rek nuy góor góorlu bu baax ci jikko ju rafet di góorgóorlu bu baax ci xajoo di góorgóorlu bu baax ci wattandiku tooñ di góor góorgóorlu bu baax ci wattandiku xàq suñ digganteeg jaamu yàlla yi moo xam xàq la ci wàllu deret wala xàq la ci wàllu alal loolu ñun ñëpp ñu di ko daw suñ kem kàttan ndax fi mu ne kenn ci nun rek xamut fan la ak dundi dundeen di jeexe ak nan lay jeexe tey waxtu wu ne nañuy jiital ak rafetal suñ diggante jaamu yàlla yi ku ku am kóllëre na koy jàpp te na koy sàmm te jëm yàlla rek tax liñ fi waxtaane lépp it léeg-léeg nga wax loo xam ne dafay mel ni lu jafe waaye nag loole la muy jafe-jafe-jafe dañuy bëgg rek nit ki di ca jéem kem kàttanam lam cay man mu di ko def te tëliwu ko bu yàggee dana dem ba àgg ci foo xamante ni jaaxal na ko xale bi dal jàng fii ne ci baa siin mi mara ci lay tàmbalee door a ñëw ci bi asmi door ñëw ci bismil bismil waaye day dem bay tari tari woo xamante ni dalay jaaxal te fekk daa am fa mu tàmbale woon ci benn baat lañ ko tàmbale loon muy baa siin mi mara mu dem bay tari kaamil bi taxaw mën koo joriku te du ci gag ben ben bat xam nga koku man na la yim budé samas sàmmaas gi nga xam ne seenum jàng soriwut féeraguñ idji sax loolu man na la jaxal waaye ki jaar fofé ba ag fofa yite ak pas-pas ak dogu ak ndimbalal sun borom moko ko fa yóbbu jikko ñu ñuy yépp it léeg-léeg it mu nuru la jafé mi li ma waxé waxe barki dembu ku la dok nang ko jokk xam nga léeg da fay mit waaye da ngay bëre ndax loolu moy jihad loolu moy jihadu nafsi nga di ca def sa kam katan waaw ki nga xam fitir dogu fettirle la nag am na ci lol taxul ñuy wax yow su boba yow li ngay def rek moy da ngay jëm waye bo jéemee te nit ka sax ca melo wam nekk it yow bul ko ëmbal dara lu ñaaw na nga am ak maandu ci mom bul ko ëmbal lu ñaaw bul ko ko wax te bul ko ko jëf waaw ku ñaawal jëmale ci nga rafetal jëmale ci mom bu ñaawal ga te dak it yow toujours mom na lu rafet dina fi yow rek te nga maandu ca it moo ko la dog na nga ko jokk ak ku xañ na ko joxit ba tey donte da nga koy jox mu di la delloo it soo ko joxee joxaat ko mu delloo la it su nga jàpp sa njàmm ndax yii may wax nii yëpp day am nit mën nay ñaawal jëmale ci yow ngay rafetal di jëmale ci moom te du ko gis su boobaa yow maandul ñàkk koo mën a jëflanteeg rafetal ga waaye yow lu mu yàgg-yàgg bul ñaawal bu mu doon ci sa wax bu doon ci sa jëf bu mu ci sa melo léegi-léegi nit mu xañ la yow nga di ko jox te te du ko nangu mën na koy gedd ak yooyu yëpp da dafa am su boobaa yow tamit amal sa yéene ju rafet te yàlla rek a tax waaye jikko yi ni waxtaane lépp ci jikko ju baax nit ki danga nga cee jéem sa kem kàttan la nga ca mënta tëliwoo ko nga di ko def te yàlla rek a tax jéggale ak jéllale ba tey noonu xam nga léeg-léeg ngay jé ngay jéggale waaye nga daje koo xamante ni ku tëla waaw léeg-léeg ah, man ngaa dem sax ba am foo aw ak moom ndax su boobaa loola mooy jur jàmm ca seen diggante su boobaa loolu tëruwut nit ki di jéggale waaye nag tëruwut muy jëllale waaye léegi-léeg nit ki am na boy goo bu ko boyee ba mu ëpp it te néew su ko taxawal fii tamit léegi-léeg loola mën naa jur fitna waaye tey su boobaa it loo cay man di def na rafet te jëmm yàlla rek tax góor góorlu ci rafetal ba yow doo ëmbal kenn lu ñaaw doo ko wax kenn doo ko jëflante kenn ku mel ne neen ci yow it nga am ci moom it ak maandu waaye bu tax nga di ko wax lu ñaaw bu juf tax ngay jëf lu ñaaw bu tax nga di jaarale fu mëna doon nun dal nan doon ay nit ño xamanteni dal suñu sunu yitte jëpp moy doon lu baax di jëm fu tollu te it baña gis sunu bop wa baña gis sunu juf. Nah, gis suñu jëf ndax nit ki sa su gisee boppam yàlla réer ko ku yàlla réer ni ko sëriñ Tuubaa wax woon seytaane moo lay womat te seytaane képp ku mu womat te safaan ba rek la lay jëlee la lay mooy tax nun ñëpp nu bokk gën a góorgóorluwaat bu baax gën a baax may so ñaan ak saa bokki taalibe yi te di leen sant ci li weesu lépp nag waaye dañuy xam ne feek noo ngi dund dañoo war di jihaat ak sunu bakkan feek noo ngi dund rek ndax la taamanu makaida cheytaani qabla firaqi ruhi li jismani nit ki wut a wóolu wóolu mukk pexam seytaane fekk roham tekkali ko wut ak jëmam te jihaadu nafsi daf na war feek no ngi dundu ndax bakkan mom limi bëgg waxtu ne mi ngi fi muy banex mi ngi fi aduna ji it ngi fi guñ fi seytaane mi ngi taxaw kon dañuy wóor ne yooyu yëpp nag waxtu ne dañuy war di góor góor lu sunu kem kattan di muñ bànneex yi yu daganut di di muñ it la ñu woo te du lu yàlla gërëm saytaane duñu saxee ñu di ko jéem di muñ adduna yi lu ñu ci yàlla jox ñu sant ko te ñaan ko mu seddu guy te jëfandikoo ci lu dagan ci ak ci la mu gërëm waaye luñ ci it ñu muñ ko la ciy sunub yàlla dina ko tenq ba mu agsi ci noonu waaye ñu ci xañit muñ ko te sant ko te xam ne yàlla dara waru ko ci noonu te noonu li war ci moom mooy ñu di ko jaamu te jëm moom rek a tax te sellal jaamu ga kon loolu maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk bokki tali bi yëpp liggéey yi nga xamante ni dañ koy def ñu xam ne liggéey yi feek noo ngi dund suñu bakkan bii ñuy noy di amug wér ci suñu jëmm yàlla di dénk dara li wér gi am suñu jëmm dañ ko war a jëmale ci liggéey boobu bii lim nuy dénk lu mu néew néew néew benn dërëm laala wax bu ko ci nit xeeb maa ngi koy dénk sama te di ko dénk ñëpp lépp luñ yëkkati kenn ko ci nekk bu ko aw ñaqam waat bu ko jëmam waat lu mu ca man na ko def te jëm yàlla rek tax ndax yàlla moom boo wut ci sa jëmm ji jëmale ko ci moom it faaw nga yëngu jëmale ko ci leneen lim la dénk it ko ko wut lu aju ci mu ak lu jëm ci moom it faaw nga jëmale ko ci feneen muy ci bakkan wala ci bànneex te loolu ay rëccu képp cay toftaloo te rëccu lay doon nga xam dab dabaatal léeg mu mu mu mu weesu wala mu jafe moo tax maa ngi dénk sama te tuddeen ko dénk liggéey bi niñ ko doon tëralee du ko doxale noonu nun ñëpp nañ ci maasi gën cee kawel su nit te gën cee farlu ndax liggéey bi kat li ma ko waxee léegi du jeex mukk ñoom ñii sëñ Cheikh Diakhaté ñoom ñeeg Cheikh Omar mais maa ngi leen yónni woon léegi nii ci béréb waaw ñooñu ñu tuuraanke leen ci diine lislaam ña nga bëgg ku leen di teete di leen jàngalal seeni doom di leen li leen leen yaral di leen xiir ci ci diine ji di leen xiir ci ak taalibe te loolu mooy liggéey bi loolu mooy liggéey bi moo nu bàyyi fii te waxtu wu ne feeg noo ngi dund ci loolu lañ fas yéene di nekk muy neex ci la ñuy nekk muy naqari ci lañu nek ndax xamni lu bax mom faaw day ànd ak natt ndax yo ye kat moy tax sa borom mën tan ay gaayam bu nat amut kenn du xam kenn ay kenn ku ne day ne ci biir rek nan gëm nak ni la sa pas-pas melak, waye fim ne feek nat dikut do xam borom pas-pas bu ak borom pas-pas bu ta suñ borom mo ne kat bu leen yaakaar ngi da ngeen nan gëm na rek te duma leen nat faaw mu nat nu ba xam ci suñu jëm ak ci suñu alal ak ci luñu wër mo xam ne xet nat ye ci lam koy jaarale ak fam koy awale kon nak loolu yi ñu xam daara yi liggéey war naa yaatu muy fi ñuy jàng ni ñuy jaamoo yàlla fi ñu koy jaamoo it noonu ni ma koy waxee waxtu ne lu ci ne ci mbaaxam ak yërmandeem ak taw fee xam barab yi lu ci bari jàppandal na ko kon la ñu mooy di jëmmal feeg noo ngi dund nu di ca ne ba njaboot gi ñëw di ca ne ñu ànd koog ñoom lu yàgg yàgg yàgg te ànd ak wér ak taw fee xam ko jàppandal ak mucc ak muccule ci mbaaxam ak yërmandeem ak taw fee xam lu yàgg fi sunu kanam ñu dee leen fee bàyyeeg liggéey bi ñoom ñu ne ca te ànd caag tawfeex ak ubbiku ba ci sunu sër sëtaat nun ñëpp yàlla nu yàlla boo ko dëgëral ci saraatal ma mu musal lu ci ndog ak pakk ak musiba ak balaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ci taxawaay yëpp kenn ku ci nekk nu mu taxawee rek xam nañ ko waaye yàlla mi nga xamante ni moo nu ci xiir te moom moo nu tax defit kenn ku ci nekk la yéeneem ak yitteem ak jëfam yàlla gëtam du ci teggi ku mukk mukk mukk ku ne la xam na ko ku la nga yéeneet xam na ko kenn ku ci nekk la mu ëmb yéene ko yàlla yàlla tëbb kàtt na ko fana wér ba jëf ci lu kaw njort muy góor muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi kenn ku ci nekk yitteem ak jëfam yëg nañ ko xam nañ ko aku jàppam aku dogom ak pëstéefam ak taxawaayam ak cofeelam gu dëggu goo xamante ni ñoo ngi koy dund ak ñoom yàlla na yàlla nag mot lu suñ ñëpp nag suñu yéene ci gën gaa rafeteen anam te bokk na defal mujj gi rafet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ok بلامه له ما لا متصرف وتكفيه وفؤادي حرفه برائه رد له ما قصد فيه من الضرر حيث وصله بزينه سمعا جميلا أبدا كما يسوء لي ومن لم يهده بيا يسوء لخيري الواحد القاهر مهتم خير بميمه ما انتهاؤه ليا قاهر وليا قدس ليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلم وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب الوعد النبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك